tey li nga xamante ne jot nañ ko fa liggéey fii Sénégal nga xamante ne 2009 lañ fi ñëw nga jël su mel duwaanu Casamance bi nga xamante ne yu fa nekkoon doon ñu woon mun a jaay su marché marché hôtel bi ne foofu noonu tey ba ñu ñëwee 2009 ba léegi nii nga xamante ne zéro dugal a dugal foofu ñaar fukki tonnes ak juróom donc loolu yokkute la mais aussi yokkute bi mooy nga xam ne yeneen euh, TP nga xam ñu ngi nekk si duwaanu Bawol ak feneen ñu leen accompagner tey ñu mun a génnee seen bopp ba gis ne li ñuy am tey mun nañ si fajal seen bopp te tey même am na ñoo xamante ne soo leen tey kaay ma gënal la billet d'avion nga dem mbëkk yi du dem am yoo xam tey soo leen ne ne kaay ma jox la nga dem ma weer bu dem ma fay la cinquante mille cent mille deux cent mille duñ dem parce que li ñuy gagné moo ëpp fuuf le salaire boobu nga xam ne leen proposé. du xoolee euh, crise post Covid 19 lañ jógee am na ñoo xamante ne yaakaaroon ne sax dañ bàyyi agricole mais ñun ñi nga xamante ne dañ ah, doon euh, encadré amuñu woon jafe-jafe bu mag même bu nekkoon ne tëj nañ marché hebdomadaire yi que jaayatuñu fépp même ñoom dañu kon ne jaay parce que loolu ba pare soo xoolee récemment am na interview yoo xam ne génnañ dañ lu ñu lekk tey fii ñoom ñu koy béyal seen bopp donc déjà assurer l'autoconsommation de ce de faire na tey nag ñu gën moom la ñu lekk moom la ñu dundal donc ñu ngi avancé côté boobu baax te yaakaar nañ ne li nga xam ne jot nañ ko def dañ ko war a gën a yaatal dañ ko dëgëral pour que ñu mën a euh, bañ a traversé crise alimentaire suñu agropole yi xam nga am na projet boo bees boo xamante dañ ko fa am bi nga xamante tey war nañ mën a tax ñu mën a lëkkale li nga xamante ne exploitation yi la OP yi ak faîtières yi ak agropole yi former leen ba ñu kii mais ñu mën a béy béy bu sakan aussi bu loolu weesu nag mooy ñu mën a def lu ñu xam ne mise en relation commerciale maanaam lëkkale leen ak entreprise yi nga xam ne ñoo nekk su agropole bi pour ñu mën a jaay foofu noonu mais mais aussi lu mën a